mbokki internet suñu buzz TV dal leen ak jaam seen actualité du jour di wax li jëm si ki nga xam ne rek mooy Ahmed Khalifa Niass jamono ji nag gannaaw ziar annuelle bi nga xam ne rek fu ñu ko doon amal foofee ca Léona Niassène kii di Ahmed Khalifa Niass nag dafa yëkkati woon ay kaddu yu ñagas daal di koy jëmale ki nga xam ne rek mooy njiitalu Pastef di Ousmane Sonko bi la yoon nag mu doon ay kaddu yoo xamante ni rek dafa ko lool ak kaddu yi nga xamante ni mu ngi ko doon wax bu njëkk jëmale ko si ki nga xam ne rek mooy njiitalu foo di Ousmane Sonko moom am Ahmed Khalifa Niass mu daal di xam ne ni rek kii di Ousmane Sonko du nitu dara moom Ousmane Sonko ab kankurang la ba tax rek saa génnee nit ñi dañuy génn di ko seetaan moom Ahmed Khalifa Niass daal di wax rek kii di usmaan Sonko day fowe li nga xam ne rek mooy suñu diine rawatina nag ñi di waa kër El Hadji Abdoulaye ñas gannaaw bi mu demee ca diwaan Touba mu bëggoon dugg pour ziare ki nga xam ne rek mooy xalif général des mourides di Serigne Mountakha Mbacké ñooñu daal di bañ ñu ne ko ba sëriñ bi génn ngir nga mun ko uh, ziyaare ci ko loon dàkk mu daal di xaar ki nga xam ne mooy sëriñ Muntaxa Mbàkke ba mu génn mu doog ko uh, ziyaar lan moo tax kon moom Ousmane Sonko bi mu ñëwee foofee ca Léona Niassène ñëwul ziyaare moom a Hadj que mu jàpp ne rek moom Ahmed Khalifa ñas nag ci loole nak la daal di mer ba mu jàpp ni rek day foowe waa kër El Hadj Abdoulaye Niass mu nekk ay kàddu yu ñagas yoo xamante ni rek moom Ahmed rek jëmale ko si kii di njiitalu Pastef di Ousmane Sonko gannaaw yi la kàddu nag jamono ji ñu bari ñoo ngi koy ñaawlu ba tax rek moom jamono ji waa Pastef ñoo ngi dal si kaw ki nga xam ne rek mooy Ahmed xalifa ñas gannaaw gi mu yëkkatee ay kàddu yu ñaaw jëmale ko si ki nga xam ne rek mooy njiitalu Pastef di Ousmane Sonko